beaucoup monsieur le président Je suis le ministre de l'enseignement supérieur euh, le ministre des finances et le ministre du travail et le directeur du budget monsieur le ministre je voudrais vous enseignement supérieur mais tout d'abord me rendre un vibrant hommage aux professeurs d'université yi nga université Cheikh Anto Diop def meilleure université Sénégal nek référence et que ñu gis tay ay professeurs yo xamni fait dem nañ bërki demoon yaay kames ñu gis résultats yi nga xamni am nañ ko donc nous day jaadu ñu rendre un vibrant hommage et di len féliciter et lolu daf may permettre aussi de rendre un vibrant hommage au grand président le président des présidents le meilleur président de tous les temps le bâtisseur le président inauguré muy maître Abdoulaye Wade parce que dafa jël enseignant dafa jël enseignant revaloriser ko jëlee leen foo xam ni ak fi mu leen yóbbu ba tey bu ñu di wax waxi enseignant et que monsieur le ministre yow mii toog tey nekk ministre xam nga ci dara parce que professeur nga tey bu ñu demee bay jox enseignant gëdd wala di ko tax wala tay muy dem ba mën a am ci euh, dina ci mën yaakaar naa président Abdoulaye Wade def na ci lu am solo te président Abdoulaye Wade dafay président boo xam ne dafa neex a remplacer ndax moom boo ko remplacer na ngay fekk mu war la yoon wi xàllil la ko ba boo ñëwee na ngay ñëw rek jël la soo teg ci kawam moo tax président Abdoulaye Wade mérite des félicitations moo tax ku ko remplacer war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax monsieur le ministre dama doon wax ci situation ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk mooy les euh, les les universités privées ci parce que bëri na ci ñoo xam ne ay étudiants lañ tey bu ñu nekkee ci université privée yooyu dañ leen di xoolee beneen bët parce que dañ leen ñaan yéen état bi daf leen fi indi te dool te duñ leen fayal et que yeneen ñi nga xam ne dañuy fay ni ñu leen di ni ñu leen di toppatoowee ak ni ñuy di bokk ak ñoom yaakaar naa bor bi bi nga ñëwee commission waxoon nga ci wax nga ni am na ay dispositions yoo xam ne jëloon ngeen ko ci yaakaar naa loolu aussi war na nekk loo xam ne war nañ tax monsieur le ministre dama bëgg wax aussi ci li nga xam ne moo nekk UVS UVS l'idée est bonne jëfin wi yaakaar naa ni moo nekkul loo xam ni euh, adapté wu na ak situation bi parce que tey ñi nekkoon ci université yu ci bëri ci UVS yi tey boo demee ci Paris Foot ñoom nga fay fekk parce que temps bi nga xam ne moom la war a jàng wala condition yi ñu war a jàngee wala li nga xam ne moo nekk seen i connexion loolu yëpp tax na tey ñoom ñëpp abandonné nañ li nga xam ne loolu moo nekk université li nga xam ne mooy UVS monsieur le ministre dama bëggoon aussi wax ci l'université future africaine bi nga xam ne euh, le président Abdoulaye Wade aussi moo ko def parce que moom day xalaat xalaat yu am solo xalaat yu yoo xam ni ba mu koy xalaat dañuy wax ne que ne lii ta nekk waaye bis bu sottee rek ñu xam ne loolu mën na nekk laajoon naa la ko en commission nga ni ma da am carte boo xam ne defan ngeen ko waaye ma li ma jàpp mooy que ni tey parce que président Abdoulaye Wade moo ko defoon rek dem na tey warul tax ñu bañ a yeggali université future africaine boobu noonu parce que loolu dafa am solo ci taarixu Sénégal mais aussi ci taarixu li nga xam ne moo nekk Afrique tey même chose bi ñu def ci université boobu moom lañ def ci hôpital Néné-Fécha bi nga xam ni madame Viviane Wade moo ko defoon alors que bu doon loolu rek la ñuy xool yaakaar naa lu bëri dooroon ko inauguré ndax loo leen inauguré rek loxo président Ablaye Wade génnu ci monsieur le ministre aussi laajoon naa la ci li nga xam ne moo nekkoon wàllu ter terrain bi nga xam ne jaayoon ngañ ko nga ni na nga ci li nga xam ne ñoom loolu lañ ci waxoon rek loolu nga ci wax et que gis nañ aussi sayes ci seen demande yi ñuy wax que ni terrain yi nga xam ni lépp dafa jëm ci wàllum université bi nañ ko bu ko waat pour moytu gars yi dem jël li nga monsieur le ministre wax institut supérieur d'Enseignement professionnel bi statut aussi les vacataires yi nga aussi war nañ la commission nga andi réponses mais war revaloriser statut.

parce que yang di xéxal di wax li nga mo donc sénégalais de ñoo soutenir de le diable soyez fiers de la personne que vous êtes te xamni euleuk l'histoire retiendra et les sénégalais sont fiers d'avoir un Guy Marissania. merci beaucoup